alaykum sunu mbokk internet bi safoo seetaan sen chaîne kewlo TV dans ak jàmm tay nak dano yeew ak nakar si dëkk bobu ñuy wowe Louga ben accident moo am vers 7 h du matin auto bi nak mi ngi joggé si dëkk bobu ñuy wowe Podor pour ñew fi nga xamanteni modi Dakar bu mu yeggee si dëkk bobu Louga L'accident bi amé vers 7 h du matin si bir accident bi nak am nañ 23 morts 22 yi ñoo sur le coup. 23e bi nag mi ngi ñàkk bakkanam ci hôpital boobu ñuy woowee Amadou Sakhir Mbaye bu ko defee ñu dem xooli suñu éléments yi. ñu sant yàlla bu baax a baax a baax parce que ñun dañoo génn Louga rek oto bi mu taw commencé taw quoi boo commencé taw léegi léegi ñuy daw quoi mais oto bi waa gi doon daw dafa bari nag quoi daw woon ndànk doon daw bu baax a baax a baax. doon daw waaw doon daw baax nag. léegi instant ba ñëwee nag ba tool ba benn ba ba ba jub Louga nag instant bi nag ci la commencé nag di kii quoi di baaje jub di di baaje mëntul maîtriser oto bi mëntu ko maîtriser après nag ci yàlla def indi ndogalam quoi. ndax kenn ku ma laajoon mu ne daw na daw na daw na daw na. Euh, ndax oto bi dafa surcharge wala. non non surcharge wul nag surcharge wul quoi. ndomb la yëpp ndomb la la yëpp waaw. Hmm. Euh, doon daw lu baax mu jékki si ak. waaw waaw mu def tënoo mënut amatul contrôle quoi mënut ko mënut bi. dajewu leen ak non dajewu na ak dajewu ak dara. dafa daw ba rek ba ba këpp quoi. pneu yi pneu yi féete kaw quoi waaw mais nag daanaka xam ñu sonn ñëpp affaire gars ñëw quoi et puis même ambulance sax ñëw nañu vraiment mais loolu wëlbati oto bi giri ko wëlbati mooy seen doon seen problème ñoom jéem nañu seen seen oto pour ñu mais affaire bi attanu ko quoi daanaka ñoo xam ne blessé yu bëri loolu yàlla dogal seen seen jaar ci quoi. oto bi fan la jóge woon. ci yéege quoi. parce que parce ba mu yéege ci oto bi apparemment maa ngi ko tontu ko laaj Fouta la jóge quoi côté Pete xaw ma la ma wax fa la jógee. waaw am na fa la jógee waaw. man Ross Béthio laa ciy yéeg man man ak sama juróomi mbokk law be quoi. ba ñëwee nag euh, ba ba ñu yéegee léegi ba trois yéegee. ba ba ba ñëpp cinq yéeg yéeg yi après ñaari ñoo am place quoi. ñaar ñoo am place. léegi yeneen trois yi amuñu place ñu ñëw ba génn Ross Béthio ñun nañ leen fëgg ñu wàcc quoi. Mhm. léegi man nag man sax amoon place dama toogoon noonu rek à côté si benn si benn ban si benn comment. si euh, comment dafa feesoon ba amoon place. waaw benn place nag moom moom moom manqué woon muy man. benn place waaw waaw mais après mujj naa am place quoi parce que dañu jënd toujours am ko wàcc ma am place. Mm-hmm. waaw mooy versage bi si kanam fi fi si buntu bi porte bi génnee. Mm-hmm. waaw foofu yow bi ngay ñëw dafa am ñoo àndaloon. Euh, mm-hmm. ñu ci seen bakkan waaw am na ñu ma àndaloon parce que sama mbokk law bi quoi ñoo bokkoon doon wut wutandoo oto foofu quoi. mooy cinq personnes ma doon expliqué. mais ñaari yoo dugg mais ñaari ñett yi comme amuñu place ñun nañu wàcc quoi ba ñu wàccee nag yàlla dogal xanaa loolu yàlla dafa am benn famille bu naan dafa demoon xew yooyu benn famille ndax loolu am. waaw dégg ko am na koo xam ñoo toogoon sànq quoi nañ demoon ceet quoi. daanaka ñu bari dañ seede seede boo xam xale bu ndaw la war na mhm. mhm. Pël moom dafa décédé. Mhm. waaw benn xaritam ko benn mbokkam boo xam ñoom bokkoon fu ñu def rajo moom moo wax quoi moom vraiment moom ñàkk na bakkanam quoi. tey boo doon ñaax euh, chauffeur si lan nga daw dank rek parce que jamm lañu dox quoi mais l'hiver ma c'est trop accident yi bari na trop trop ni ñang ngi ci accident yi dama ñaan daal ñu def dank rek te yàlla rek tax ndax vraiment dem mënu ñak waaw ndax ba ngay def accident li ñu la ci auto yobul kon mënu ñoo tagoo auto waaye ñi nga xam ñoo auto yi nañ and ak seen xel and ak dal and ak yar ak teggin jambar lañu dox inshallah jambar lañu dox lu même doon safaan sax da nga wadon dank li leen leen indi lon tay ci euh, seen euh, chaîne d'investigation bu Kewlu TV ñu leen ñi jox dig daje ba beneen yoon ak beneen élément